li doon teggin mooy ma jóg wan leen respect ak cër bu mat sëkk bi ngeen am ndax ku gis jotaay bi dégg ñi fi jël kàddu ñëpp xam ne mbooloo mi mbooloo bu ay militant ñoo fi nekk benn mais lii gën a wane ne ay militant ñoo fi nekk mooy list bi ñu defoon pour ñu wax daanaka dañ ko romb di wéy quelque rek ñoo waroon wax muy coalition yi bi ñu defee loolu mu am ñoo xam ne ñi ngi ñëw ci Cheikh naan ko bëgg naa wax bëgg naa wax ñu leen di jox parole ñi war a wax ci biir mbooloo mi ak a bari te kenn waxul maa ngi leen di sant yéen waa Benno Bokk Yaakaar ndax yàgg nañ di fi def réunion kenn ku ne damay wax damay wax waaye tey ñi ñu jox rek ñoo wax ñeneen ñi dañu toog te pourtant ñëpp mënoon nañ ne damay wax loolu mooy wane ne li ñu tàmbale woon di tabax ma ne mi ngi nekk mi ngi dëgër fii famille ya fi nekk bu kenn waxee waxal na ñëpp kon maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a waroon jiitu ci wax ji te waxu leen may remercier di sant association yi organisation communautaire de base yi ak mbooleem ku fi ne gis nga Fatou bi muy wax léegi dafa ne yëgaloo ñu waaye ñëw na sànq wax nañ ma waa Jokkare Endam ak yeneen ak yeneen kuréel yoo xam ne waa marché gis ngeen Rose Jogay ñi ngi fi te daanaka duñu ay militant mais dañu bokk ci commune ànd ak ñun ci liggéey bi ñuy defal président Macky Sall ñoom tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm dinaa dellu si nag si si kàllaamay kocc ci kanam ndax li ñu war a wax dafa am solo mais damay ñëw tuuti ci discours bi ci français ba pare su ko defee ma door a dellu